ndaw si kenn du fa jóg àdduna kenn du fa des sëriñ bay Jaxate nee na lu ñëw te xam ne dafay wéy def ko yow ne la wéy lu dikkul it te xaloo ñëw def ko yow ne la ñëw sëriñ bay Jaxate nee na jëmal ci yàlla te doyloo yàlla ak dogalam bul fàtte it senn saa bis ci bàkki mbiram sëñ Mbay Jaxate nee na jëmal ci yàlla te doyloo yàlla ak dogalam bul fàtte it senn saa bis pénc baaki mbiram bu nit ñi dee fàtte dee kay bég ci àdduna ji sabal sa xel teg ca dee ak yàlla yow taxalam sëriñ bay jaxate nee na fàtte ka bon fàtte dee rek kay waral nit a bew bu dul ko nag fàtte dee kenn dootu reew ak bew bu dul ko nag fàtte dee kenn dootu am lu ko saf kenn dootu am lu ko soofi dee waral ku ne sew sëriñ Bay Jaxate nee na koo xam ne xam nga ne dee ngi ñëw te faaw mu ñëw ne nemm rek a ko war tey jéem a daw yi fi ndaw sëriñ Bay Jaxate nee na tuubug mooy ak yaru moo war képp koo mën a gis dee gaa ngi dàq te day jot ñëpp kenn du ko raw sëriñ Bay Jaxate nee na lëf mët la tiisoo lu dul mooy yàlla kiy juru ay lëf mët la bëggit lu dul jub dong kiy juru yiw sëriñ Bay Jaxate nee na loo wér-wérit wan ko bis loo tedd tedd torox loo man-man it tële loo wax waxit ne selaw sëriñ bay Jaxate nee na bul bëgg nag lu fi nekkul bëgg loola du mbir àdduna kër la gu ñuy dox jëm ca kër ga ca kaw sëriñ bay Jaxate nee na àdduna kër la gu ñuy jaamoo ko sonne bu wér àllaaxiraa di këru xéewal lu bon du fa ñëw sëriñ bay Jaxate nee na koo xam ne nekk na ci jub tey ba dee ci bu wér bu ëllëgee ñëpp ñee koo ñeete bokk ko naw sëriñ bay jaxate nee na lu fit jullit mën a for tey jii ci luy nuru mbég yóbbal la rekk na koy jaamoo ko sante di daw sëriñ bay jaxate nee na soobul ngirum aljanay waaxoo ko lagg ka daw ba tabbi aljanna biir ak bitti door a taxaw sëriñ bay jaxate nee na loo man di dégg ak a gis tey ciy ngënee la ki mbég te tabbi ko bu wér am ndog la kat na nga daw sëriñ bay Jaxate nee na doo xam ka ngay xal a gën doo xam ka lay xal a gën te tàbbi woo ko bu wér loo jëf-jëfit bu ko naw sëriñ Mbay Jaxate nee na ndegam dangaa jëf a jëf yow mii ba naw la nga jëf seytaane jëf na lu kenn dul jëf te mujj na bew sëriñ Mbay Jaxate nee na xam-xam bu rëy ak alal ak jaamu yàlla guy rëy ak jaglu ak siiwu siiwutur yii yépp tax ti la raw sëriñ Mbay Jaxate nee na bu bu donte alal ak mbooloo di lay tax a gën xaaroon a gën ñëpp ak fir aw na yeewu la ndaw sëñ bay jaxate nee na fee jant bay fenke ak fee muy xaloo sowe tey boo saytu woon lépp itam dee nangu ko ci yow sëriñ bay jaxate nee na loo saytu ak koo saytu dee dana xëy bis nangu loolale ak kookee nga des ne fëréw sëriñ mbay jaxate nee na bul gàtt am xel ba yaakaar yi fareeki alal bari fareeki alal taxtil nga am jëfi yiw sëriñ bay jaxate nee na ñi lay dawal ak a raamal di sàkku sa mbég boo dee dañuy romb sa xabroo ko dox fi sa kaw sëriñ Mbay Jaxate nee na bul ñeeka mbooloo ma wër muy xàqtaay ak a ree ngir leemu wéet ak paxam rekk ak jëfam ni selaw mbokki taalibe bi maa ngi leen di siyaar baax ci gàttal ndax ni wat ni waxtu wi demee ak liñ bëgg